salaamaaleykum mbokk yi leen di siyaar leen nuyu yéen ñëpp euh, di nuyu mbokk yi jullit yëpp ak mbokk yëpp fu waay mën a nekk ñu koy nuyu di ko siyaar bu wér wér ñun nag ay sénégalais lañ nekk fii à niveau du Niger quoi ñun Algérie lañ nekkoon euh, yàlla def état bu Algérie euh, indi woon refoulement ñu jàppoon ñun refoulé ñu mais li ñuy lancé mooy dañuy lancé état bu Sénégal di wax ni Macky Sall moom mi nga xamante ni moom la yàlla def mu nekk ci boppi réew mi moom la yàlla jiital. Euh, pour mu gisee état yi mel nii mu xam ne ay doomi réewam ñu ngi fii ci àll bi di sonn euh, di daj ay conséquences yoo xamante ni kenn mënut a xam kenn mënul xam tolluwaay bi. lii ngay gis nii ñu ngi ci bi ñu indee di ñu wàccee benn dëkk bu nekk bi frontière ak euh, Algérie bu tudd ci Niger la bokk mi ngi tudd samaka foofu def nañ fa presque pendant un mois daj nañ fa ay coono yoo xamante ni lekk yan lay jox yow ban boo ko joxee xaj sax du ko lekk mais ñun ñàkk pexe ñoo tax ñu ko doon lekk. ñàkk pexe moo tax ñu ko doon lekk lii ay base la yoo xam te ne ci ngay fanaan ci ngay yendu tàngoor bi maara day taali bu la jàppee bëccëg bi mën naa wax ni day mel ni jant bi la ñu wàcc sa kaw bopp comprendre nga euh, ay nationalité yi fi nekk yëpp bépp xeet boo xamante ne mi ngi ci Afrique rek bépp nationalité rek mi ngi fii ci ci base bi nii euh, seen boo waxee directeur bi nga xamante ni mooy directeur OM bi ñu di ko ne ko ñun suñu dem suñu Sénégalais yi dafa yéex mu ne yéen seen ambassadeur moo liggéeyut seen ambassadeur moo liggéeyul parce que yeneen ambassadeur yëpp ñu ngi liggéey parce que saa yu convoi waree am da gis convoi yi nationalité yëpp da gis ay Guinée Mali yeneen yeeg Burkina Faso ñëpp da gis ñuy jël ay cent soixante cent cinquante deux cent ba trois cent dañ ko jël. mais ñun nga xamante ne ñooy sénégalais yi ñun nga xamante ne ak baat bi ñu am ci àdduna bi ak respect bi ñu am comprendre nga ak suñ tur fu mu àgg ci àdduna boo waxee ñu ne seen ambassadeur liggéeyul moom la directeur OM bi di wax carrément seen ambassadeur liggéeyul parce que euh, moom boo ko yónnee cinquante papiers pour mu signer ko. pour ñoo ñu mën a quitter ñaar la ciy signé wala benn mais ambassadeur boobu loolu muy def noonu sabotage la wala lan lan la ci jublu lan la ci jublu tey dafa waroon a xool moom tey état bi ñu féete nii bu ko fi yàlla féetale woon moom nan lay demee ci moom. dañuy wax dëgg te yàlla tax gis nga yow Macky la yow mi nga xam ni yaa nekk ci bopp réew mi yow la ñuy lancer message bi pour boo ko gisee ak kullu koo xam ne mën na koo gis Sénégal rek automatiquement na nga ko partager na nga ko lancer fii nii ni nga xamante ni ñun fi ñu nekk nii si désert bi la ñu sànni fii doy na waar lool lool lool lool gis nga lii ngeen di gis nii yëpp lii ngeen gis nii lee mooy duus yi ñetti duus la yoo xamante ni nit ñi dañuy xëy rang ko ñaari building yee ngeen gis mooy robinet bi nit ñi dañuy xëy soo ba ngoon pour mën a naan di ko rang léegi ngeen gis ne yëpp ay ginnaaw kër la ku bëgg a dem duus fee ngay dem jongal fa dem duus xam nga lii dafa ñaaw kon fii ñu nekk nii ci règlement yi ñu nekk doy na waar goo xamante ni kenn mënu ko expliquer léegi nag ñun lu ñuy ñaan yàlla rek mooy état bu Sénégal nañu dimbali nu mu gën a gaawee fexeel ñu ambassade bi nga xamante ne moo nekk ñaame deful liggéeyam deful lu ko war lu ko neex lay def saboté lay def day saboté dafay saboote état bu Sénégal ñu ngi lay ñaan boo gisee si vidéo bi nii nga dimbali ñu nu mu gën a gaawee parce que directeur homme bi heure boo ko waxee mu ne la seen ambassadeur liggéeyut parce que boo leen wax boo waxee ñu ne la mënuñu signé signé si ngeen yóbbante yëpp papier yi ngeen yoo yóbbante yëpp amul lenn luñ ci mën a si signé lu dul ñaar comment nationalité bu nekk di jël ay deux cent cent cinquante soixante Sénégal di jël di jël chaque convoi mu mën a jël benn benn benn benn personne wala ñaar loolu lu ñaaw la loolu lu ñaaw la ci tur Sénégal ñu ngi ñaan nag képp ku gis message bi ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nga ko partagé nu mu gën a gaawee ba état yëpp gis ko gis nga rang bii ngeen gis nii yëpp lekk la boo bëggee lekk lii ngay def da ngay raa raa boo xam te ne plus de ay mille personnes ñooy nekk sa kanam pour nga mën a lekk lii lu ñaaw la quoi ñoo ngi ñaan état Sénégal ak ñu nekk ci wetu état bi ku gis lii nii na nga ko partage ni mu gën a gaawee ay doomi Sénégal rek ñoo nekk fii sono nañ ci lool lool lool pendant trois mois ñoo ngi ci diggante Asamaka ak Arlit te loolu yëpp ci Niger la nekk même pas deux cent kilomètres ñu bëgg fee def trois mois loolu lu ñaaw la quoi lu ñaaw la vraiment ñaaw na trop trop trop trop ñaan état bu Sénégal bu gisee lii nii na ci def ay jéego yu gaaw gaaw a gaaw parce que fii ñaata sénégalais ñoo fi ñàkk seen bakkan plus de six sénégalais ñàkk nañ seen bakkan par rapport ak yi nga xamante ne algériens yi ñoo leen dóor ba ñu ñàkk seen bakkan ca àll bi ñooñu seen mbokk tey fu ñu leen gisee ku ci toog pendant un an gisoo sa mbokk wala sa doom wala sa lenn lu mu mën a doon xamal ni dee na ci àll li fi dee ci sénégalais kenn ak yeneen nationalité te dara teguñu ko lu dul suñu ambassadeur bi nga xamante ne moo nekk fii ñaame di def lu ko neex di saboté di jël sa convoi ay benn wala ñaar affaire sabotage yooyu affaire maa tey yooyu te yow dañ la fa teg pour say doomi réew nga ne yow da liggéey sa convoi nga ne da ngay jël benn wala ñaar su la yónnee quarante personnes pour nga signer seen papier nga signer benn wala ñaar pour la la loolu. kon kon